ok alhamdulilah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi dellu siwaat ci daje bi ñuy am dimanche bu nekk incha allah ak téere bi nga xam ne ñu ngi koy topp di minhajul muslim wa abu bakar jabir aljazairi rahimahullah dimanche bi mooy ñaar fukki fan ak juróom benn te la nga xam ne mooy rabiul awal di tombeeg le 23 octobre ci li nga xam ne mooy 2022 ñu ngi doon topp suñu téere bi ba yegsi woon ci li ñuy tuddee jumlatul uqud ba war a yegsi jàngoon li ñuy tuddee ar-rahn bu dee ñu yor mool bu bees bi yaakaar nañ 325 yenn traduction yi bu ñu xoolee yaakaar naa 305 la mooy li nga xam ne mooy ar-rahn jëloon nañu bopp bi mooy donte ne ne comme li bind bu bees la dara nekkul ñu jaaraat ci ngir ña koy dab mën a comprendre la nga xam ne moo nekk ca suuf looloo tax yoom yor sab téere danaan arrahna mooy ak tayle garantie taarifuhu huwa tawsiqu dayni bi aynin yumkinu istifaauhu minha mooy ñu doon loo xam ne dañuy dëgëral ab bor ci benn moomeel matériel boo xam ne danca mën a fayeeku bor ba aw min samaniha walla ñu jaay ko fayeeku ca bor ba wa zalika ka an yastadiina shaxsun min aaxir daynan mi ngi mel ni benn waay ñëw leb ci keneen bor fa yatlubu daa'inu minhu wada'a shay'in taxta yadihi ka ko bëgg a lebal na ko jox ma loo xam ni day nekk sama suufu loxo min xayawaanin ci ay jur aw aqaaraatin wala ay terrain aw gayrahuma wala leneen lu dul loolu li yastawsiqa daynahu ngiree mu daal di am dëgër lay gu muy dëgër loo ca borom boobee fa mata xalla al ajal heure bu ñu demee ba dig ba daal di jot walam yusaddid lahu dayna ca fayu ko borom istawfaahu mimma taxta yadihi mu fayee ko ca la nga xam ne moo nekk ci suufu loxoom ay lam yor fa daa'inu kay leble yusamma murtahinan dañ koy tudde kañu tayle wal madin kay leb yusamma rahinan moom la ñuy tudde ka tayle wal aynu matériel ba ci boppam al marhuna ba ñu tayle yusamma rahnan loolu la ñuy tudde ak tayle su ko defee mu ne xukmuhu luy atteem arrahnu jaiz leble day laajte ab garanti loolu dagan la bi qawlihi taala ndax suñu borom nee na wa in kuntum ala safar su dee da ngeen nekk ci tukki walam tajidu kaatiban ca amuleen ku leen bindal fa rihaanun maqbuda kon na nekk tay la goo xam ne dañ koy jàpp téye ko wa bi qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yuxlaqu rahnu min saahibihi lii nga xam ne ak tayle kenn du ko doon di ko xañ kaka moom saahibihi lazi rahna ka nga xam ne mooy boroom ba ka tayle lahu xunumu dana ko ñeel lépp loo xam ne juddoo na ca tayle googee wa alayhi xurmu dana ko ñeelit bu dee alkaange dafa nekk ca tay la googee wa qawli anas radiallahu anhu anasit radiallahu anhu daana wax rëhëna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dir uhu dir ahu dir an yonent bi day taylu woon na benn mbubb ba muy sol ci xeex inda yahudiyin ci benn yahud ca madina fil madina wa aqaza minhu sha'iran li ahli mu jël ca li nga xam ne mooy pepp moom dundale njabootam kon lii mbokk lañ jàngoon dimanche passé la ca nekkoon ci ay leeral loole ña ko fekke woon fekke nañu ko su dee da ngaa bokk ci groupe bu jàkk ji it boo delloo ca darsu ba da nga ko ca fekk bu ko defee suñ darsu tey bi day wax ahkaamur rahna ana yan attee moo mën a tege ci tayle ga ñuy tayle يلزم الرهن بالقبض الراهن لا مرتهن mu ne la nga xam ne mooy tayle ga dana doon lu lënkoo lu ñu saxal ñeel ka nga xam ne moo ko tayle falaw araada rahin istir istirdaada rëhni ka tayle bu bëggoon nanguwaat lam tayle min yaddil murtahin te loxo ka nga xam ne moom lañ ko tayle lam yakun lahu zaari du ko ñeel loolu amal murtahinu bu dee nag kañ tayle fa inna lahu raddahu su ko neexee delloo ko idil xaqu xaqu fi zaalik ndax àq ba àqam la ci loolu kon atte bi mu njëkk a wax fii benn waaye ngi masalan ñëwoon tayle ab otoom wala tayle kayitu këram ñu lebal ko xaalis ba mu jëlee mbir ba ba joxe ko amatul droit di ko jëlaat xanaa lu dul koy daa fay bor bi kon moom ma ko tay la amul droit di ko jëlaat amma kañ tay la woon moom heure bu ko neexee mën na ko diw kaay jël sa oto wala jëlal sa fas wala lu mu mën a doon lu mu ko tay leen teewul bor ba moom des fa ndax bor ñu tay la ca ak ñu ñàkk ca tayle mooy garanti ñàkk garanti kii lépp moom daa war a fay kon kan tayle heure bu ko neexee moom delloo ko waaye ki tay la woon amul droit di ñëw di ko jëlaat lu dul daa fay ñaareelu atte bi maa la yasixu bayuhu min al ashiya lépp loo xam ne ku ko bëggoon a jaay du dagan ci lislaam laa yasihu rahnuhu du dagan ñu koy tayle illa zara wa samara qabla badui salahuhuma xanaa lu dul loo xam ne am mbay la wala meññeent jiite muy feeñ ak mbaaxam ak ñàkk baaxam fa inna bay'ahuma haram jamono boobu tool di toll te xamaguñu dana meññam du meññ day aram ñu ja ñu jaay ko wa rahnuhuma jais waaye nag mën nga koo tayle is la garara fi zalika alal murtahin ndax ak wor du nekk ci loolu ca kan ka garantir li anna daynahu saabit ndax bor ba day sax fi zimma walaw talafa zaru aw samar même bu doon tool ba daa yàqu it du tee ñu fay ko borom amma bu doon da nga koo jaay kan ko jaay moom su yàqoo mën na perte kon ci gàttal mooy tayle lan mooy njëriñam mooy waa ji nga xam ne da da dafa tayle mbir leb bor mooy kaka ka lebal mën a jaay loolu fayee ko borom su dee mbir la moo xam ne daganul ci lislaam ñu koy jaay lu mel noonu islam du nangu ñu koy taylee ñetteelu atte bi mata xalla ajalu rahn heure bu demee ba jot jig bañ jige woon ca tayla ga taalabal murtahinu bi daynihi dana sakku ka nga xam ne moo leble woon ci ñu fay ko borom fa in waffaahu rahin radda ilayhi rahnahu ka nga xam ne moo tayle woon bu fayee mu delloo ko lam tayle woon wa ila istawfa xaqahu min arrahni almahbus bu dul loolu mu daal di matal lii di àqam ca tayle ga nga xam ne moom la fegoon taxta yadihi ci suufu loxoom min xallatihi wa namaihi in kaan buy fayeeku it bu ko neexee fayeeku te la nga xam ne loolu la jur mi ngi noonu ak ful ga te fulu la doon ca doom yi jur ga jur wala meññent ya tool ba indi wa ila baa'ahu wastawfa xaqahu su dee ne munu koo fayee koo ca loolee nga xam ne moom lañ ko jox su ko defee mu dem jaay ko daa di jël aqam wa ma faddala raddahu ala saahibihi la des ca aqam mu delloo ko borom borom ba wa in lam yafi rëhn bu matul la nga xam ne mooy taylaga bi kulli daynin ci bépp bor fa ma baqiya fa huwa zimmatu rahin fa huwa mi ngi noonu day nekk kóllëre ca ka nga xam ne moo leble kon day wax fii rek ne islaam ni mu gis a tayle mooy lan waa ji ñëw na masalan leboon benn waaye ngi ni un million daa di koy jox ab otoom ne ko oto bii day mooy garanti bor bi buñ toogee fii ak deux mois danaa la fay waa di ñu toog deux mois mu ñëw laaj ko bor bi mu ne amul lu mu ko fayee su boobaa oto boobee bu doon te ne dañoo ut ay témoin ñu xool na kat oto bii munta passé un million kon waa di danaan kon léegi oto bi sab oto la day jël oto bi mu ne comme oto mu fayee ko ndax méngoo na ak bor ba mu ko jaay amma bu dee aji sayde yi dañoo ñëw ñu xool ne kat oto bii bu ko doon jaay dana ëpp un million su boobaa dañuy dem jaay oto bi moom mu fay fayee ko un million la des ñu delloo ko borom bor ba su doon te ne ne lam ko garanti moom dafa yées borom masalan oto bi biñ ko jaayee huit cent mille lañ ci am kon waa ji danan jël na huit cent mille am yow yaa ma desal deux cent mille loolu kon bokk na rek règle lu bari ci doomu aadama yi na doon suñu réew ak feneen ni ñu gis a tayle mooy ki ñëw tayle woon même bu dee lam tayle ëpp na lam leb ci yow fukki yoon bis bu dig ba jotee ca fayul rek day ñàkk amma islam moom gisuwul noonu mooy tey la ab garanti rek la boo xam ne nii bu jotee dañuy xool ndax méngoo na ak bor bi wala ëpp na bor bi wala yiis na bor bi mi ngi noonu soo ñëwee ci ñeenteelu bind bi mu ne arrahnu amaanatun fi yaddil murtahin tayle day day nekk kóolute ca loxo kañ ko tayle fa in talifa bi tafriitin minhu su dee yàqu na wala jurga dee na ci gàttal lu gum te def aw taaddin wala jiggi dayo gum ci jiggi dayo damanahu fokk moom day garanti loolu ay day fay loolu wa illa fala damaana alayhi bu dul lool nag amul benn topp buñ koy topp ci garanti gu muy war a garanti di fay loolu wa yabqa daynuhu fi zimmati rahin borom ba day des ca la nga xam ne mooy loosu ko tayle woon ay ca kawam mi ngi noonu kon mbokk fii day wax rek ne ki indi benn matériel tayle ko nit leb ci moom xaalis matériel boobu dañ koy jàpp comme dénkaane tey ki ñëwoon dénk la fasam wala dénk la xaalisam wala dénk la lu mu mën a doon su dee na yow jaarale nga ko fa ñuy jaarale dénkaane sagganoo ci jéggiwoo ci dayoo yàlla dogal loolu yàqu islam du la topp ne da ngay fay na doon fas wa dee na xar ya dee nañu wala lu mën a doon bu dee ne daal gàttañ li wu ci benn yoon lam ca war a taxaw taxawee na ko ku mel noonu borom tay la nga mooy ñàkk amma nag bu dee dañoo saxal ne moom ci boppam moo utiliser matériel ba ci lu jéggi dayoo wala moo sàggane jur ga ba ñu dee su boobaa loolee day fay loolu nga xam ne moom lañ ko tayle woon amma bu dee bind bi ci topp mu ne arrahnu ama naam loolu jàngoon nañ ko bi ci topp mooy yajuuzu yajuuzu wadu rahni taxta yadi amin dana dagan ñu jël tayla ga teg ko ci loxo ku wóor xayril murtahin ku bokkul ak ka nga xam ne moom lañ ko waroon a tayle isil ibara bi istisqaaq ndax la ñuy xool rek mooy la nga xam ne mooy ak saxal ak dëgëral wa huwa xaasilun inda al amin te loolu day doon luy nekk ci bu nekkee ci loxoy koo xam ne nii ko wóor la kon loolu lim ci bëgg a wax mooy sàmbaa ngi nii ñëw na dem ba lebal ma cent mille léegi su ko defee sama machine bi danaa ko jox Alioune mu garde ni ko garante suñ diggante bu weer wi dee su dee ne fay naa la xayrun su ma la fayul moom mu jël jaay machine bi fay la loolu lu mën a nekk la mooy ba ñuy tayle kay leb joxu ko ka ka ka lebal waaye dañoo wut keneen koo ko garanti ñu jël matériel ba jox ko heure bu dat ba jotee kooku mooy nekk di atte seen diggante loolu lu mën a nekk la mu bokk ci ba tey ci bind bi ci topp law ishtarata rahin adama bay rëhn su doon te ne kay tayle si dafa chartoog ne ah sama bor sama tayle gi kenn du ko jaay inda xululil ajal heure bu dig bi ñëwee it doo ko jaay batala rëhn kon loolee kenn du ko tudde ak tayle ci lislaam day neen kama law ishtarata al murtahin mi ngi mel ne rek kañuy tayle bu doon moom it daa charto annahu matta xallal ajal ne heure bu dig bi jotee walam tuwaffi day nii te fayoo ma sama bor fa rëhnu lii li nga tayle yépp maa koy moom su booba yabtulu rëhn ba tey tayle ga day neen li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa yuxlaqu rëhnu rëhnu liman rëhna kenn du nekk di xañ tayle ñeel ka ka tayle lahu xunumu dana ko ñeel la nga xam ni moom mooy lay juddoo ca lam tayle woon wa alayhi xurumu te dana ko ñeel alkaange ngay dal ca lam tayle woon mi ngi noonu kon li mu wax fii rek mooy waa jàngi nii ñëw tayle ne kayitu këram tayle na otoom tayle na fasam lépp waa ji bor ba pare nag na ko ah léegi daal dag may lebal det sàngam laa lay fay waaye suma matériel bu det bi jotee it duñ ko jaay loolee tey la googu lislaam du ko reconnaître contraire bi mooy li xew ci dëkk bi lu bari ci ak ci àll bi yépp mooy waa ji ñëw di la leb tey la la nga ne ko ah bu dat bi jotee ba ma fayul ñàkk nga de loolu l'islam du ko nangu niñ koy waxoon ci darsu bi darsu bi passé malheureusement soo demee suñu àll yi dafa jeex ay jamono yi nawet nga gis nit ñi sonn lool ñëw tey la seen charrette charrette boo xam ne war naa jar cent mille nga lebal ko vingt cinq mille bu dat ba jotee nawet bi baaxul amul lu mu la fay nga féetewoo charrette ba wala féetewoo machine ba wala féetewoo fas wa loolee da ngay gis ne islam nangut loolu képp ku ko def lekk nga alali jàmbur ci neen beneen bind bi ci topp iza ixtalafa arrahin wal murtahin ka tayle woon ak kan tayli dañoo jooyoo fi qadri dayni ci bor bi ñaata la fal qawlu qawlu arrahin bi yaminihi wax ja attekat bay jàpp mooy waxi kattayle ànd ak waat gam waat illa an yaji al murtahin bi bayyina mi ngi noonu su dee ne dañoo wuute waa ji ñëw ne ko cent mille laa leboon ci yow ka lebal na ko déedéet cent cinquante mille laa leboon ci yow su boobaa attekat bi ka lépp lay wax mu waat ci yàlla ni cent mille rek la leboon ci moom ci loolu lañ leen di atte allah mënu dul ko ka lebal indi preuve yu leer ci ne cent cinquante mille la jëloon ci moom gannaaw loolu mu ne wa in ixtalafa fi rëhn bu dee nag juyoo ga daa am ca lañ tayle fa qaala arrahin rëhantu ko daabatan wa ib wa ibnaha kay tayle ne bi ma koy lebal bi may leb ci moom joxoon naa ko benn daaba masalan benn nag laa ko joxoon ak doomam fa qaala almurtahin bal daaba ka nga xam ne moo ko lebal ne déedéet benn daaba rek la ma joxoon nag rek la ma joxoon faqat su boobaa fal qawlu qawlul murtahin wax dañuy jàpp mooy waxi kañ tayle woon bi yeminihi ak waat gam waat ci yàlla ne benn nag rek la ma joxoon illa an yaji al rahin xanaa lu dul daa indi ka leb la woon ka leboon bi bayyinatin ala da'waahu ci preuve yu leer ca lam woote woone nag ak doomam la ko joxoon li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al bayyina ala al mudda'i preuve day daañ ko laaj képp ko woote woo mbir wal yaminu ala man ankara waat ci yàlla it dañ ko laaj képp koo xam ne daa weddi lañ ko jiiñ mi ngi noonu beneen bind bi ci tege mu ne in idda al murtahin su woote woo kañu tayle radda rahin radda rëhn man kat delloo woon naa ko tayle ga fa ankara rahin ka tayle woon weddi loolu fal qawlu qawlu rahin wax dañuy jàpp su booba mooy waxi ka tayle woon bi yaminihi ak waat ga muy waat illa an yaji al murtahin bi bayyinatin tusbitu raddahu lu dul ka nga xam ne dafa dañ koo tayle woon daa indi preuve buy wone ne delloo woon na ko lam ko tayle woon kon yooyu moom ay mbiru atte la amma bu dee bind bi ci tege lil murtahin an yarkaba ma yurkabu min rëhn ka nga xam ne dañ koo tayle mën na nekk di war lañu mën a war ca tayle ga dañ koo tayle woon benn fas benn mbaam su booba am na droit di war fas ba di war mbaam ma wa yaxlaba ma yuxlabu bi qadari nafaqatihi ala rëhn mën na nekk di ratt la nga xam ne dañ koy ratt ci soow ci lu méngoog dépense yi muy def ca la nga xam ne moom lay war wala moom lay rat wa alayhi an yataharra al adla fi zalik te it day war mu tànn ak maandute ci loolu fala yantafi minhu du jëriñoo mukk ca lañ ko tayle bi aksara min nafaqatihi alayhi ci lu ëpp la nga xam ne nii mooy dépense yam cay def li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat yonent bi alayhi salaam daana wax ni azahru yurkabu bi nafaqatihi la nga xam ne dañ koo war a war mënees na koo war ci dépense lañ cay def ida kaana marhuunan su dee ne dañ koo tayle wa labanu dar la nga xam ne mooy meewu li nga xam ne mooy battu xarma wala nag ba yushrabu des na ko naan bi nafaqatihi te dépense lañ cay def ida kaana marhuunan su dee dañ koo tayle wa ala allazi yarkabu wa yashrabu nafaqa ka nga xam ne nag mooy war cay rat koo koy war a dépensé te loolu mbokk mi ngi noonu waa ji ñëw na lebal daal di tayle nit ki ay fas wala mbaam bu doon sunu jamonoy tey ji mën nañu wax ab oto su boobaa dañuy xool su dee ne kiñ ko tayle jël na engagement ci ne moom moo yor dundu jur googee su boobaa am na droit di ko war ba baa ñu koy delloo boroom xar yaak nag ya bu dee ne moom moo leen di xont am na droit di ko ratt ba baa mu koy delloo boroom amma su dee ne waa ja ko tayle si kooku moom mooy ka nga xamee ne nii moom mooy continuer dundal ak juróom su boobaa amul droit di ca war wala am droit di ko ratt lu dul ci ndigalu ka nga xam ne nii moom moo ko ko tayle ba ba mbir ma di jeex amma bu dee ni bind bi ci tege mu ne simaaru rëhn meññetu lañ tayle ka ija ka ka ka ijaaratin lu mel ni masalan location ya wa xallatin wa wa naslin lépp loo xamee ne nii dafa doon lu jóge ca masalan tool ya wala lu jóge ca jurga wa naxwiha ak lu mel noonu li raahin kooka moom mooy ka tayle wa alayhi saqyuhu moom moo ko war di ko arrosé wa jamiu ma yaxtaaju ilayhi ak lépp loo xamee ne nii da koy war a jëriñoo li baqaa'ihi njëree loolu sax li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam arrahnu liman rahana tayle daal ko ko taylee ko moom lahu xunamu da ko dana ko ñeel la cay jëri la cay génn ci bénéfice wa alayhi xurumu dana ko nekk ci kawam it la ca nekk ci ay yàqu-yàqu kon day bëgg a wax fii rek te tayle woon masalan kër gu ñuy luye ka nga xam ni moom moo moom kër ga tayle ko location yi cay génn yépp moo ko moom kiy joxe woon ak juróom jur googee am ay doom te fañ ko tayle teewul doom yi yépp moom moo ko moom mi ngi noonu doonte ne ni bu doon ay tool ak yépp moom moo ko war a taxaw di ko arrosé ngiree mu bañ a yàqu allahuma lu dul moo ko moom waaye ka nga xam ne moo ko lebal comme nañ ko jànge woon ci kaw suñu demee ba mu war a fayee ko bor ba am na droit fayee ko ko ci lépp loo xam ne nekk na ci loxoom cañ tayle ko ko waaye ka moom dëgg-dëgg moom mooy ka nga xam ne moom moo ko tayle bind bi nga xam ne moo ci tegee in anfaqa al murtahin ala xaywaani rëhn bu dee ne ka nga xam ne daa dañ koo lebal bu ka nga xam ne moom moom lañ tayle ay moo leb lañu tayle ko mu dépensé ca jurug lañ ko tayle bi duuni istizaani raahin te sakkuwul ndigalu kaka ka tayle fala yarji'u bihi ila rahin kooku du mën a dellu di ko fayeeku ka ka tayle wa in ta'azzara istizaanuhu li bu'dihi su deene nag daa am ngant ci man koo tagg ngir sori gam sori masalan falahu mutalabatuhu kon am na droit di ko fayeeku in anfaqa ma anfaqahu bi niyatin rujuu mi ngi noonu ala rahin su dee ne dafa dépensé ci yéene dellu wa dellu ca kakaka tayle pour mu fay ko wa ila fala bu dul woon ak yéene boobu amu ko du ko def li anna al mutatawwi ndax ka coobarewu la yarji'u bi amalihi du delluwaat ca jëfam boobee kon li mu bëgg a wax foofu rek mooy ki nga xam ne dañ koo tayle balaa jëfandikoo lañ ko tayle da cay laaj digal man na wax waaja ko tayle jur gaa danaa leen dundal de waaye nag maa koy jëfandikoo bu dul loolu ka ka tayle moom moo am droit di dundal ak juróom ba baa diggu ba di jot loolu lay wax foofu mu ne nag bu dee ne waa ji dafa xëy rek di jël ak xont di jox jur ga te laajul borom jur ga su boobaa amul droit di ka ka fayeeku amma bu ko laajoon ba mu jox ko ndigal ci loolu su boobaa imma mu koy jëfandikoo di ko war di ko rat bu dul lu ñuy jëfandikoo di war a ko rat am na droit pour mu delloo ko loolu mi ngi noonu amma bu dee ne bind bi ci teg in xariba rëhnu bi an kaana daaran bu dee ne lañ tey la woon daa yàqu mabb masalan kër la woon fa amarahu almurtahin bi duni izni rahin ka nga xame ni nii moom lañ ko tayle dem dëkke kër ga te jotu ci woon ndigalu ko ko tayle fala shay'a lahu du ko ñeel dara yarju'u bihi ala rahin boo xam ne da koy dellu woon ci teka ka tayle illa ma kaana min aalatin lu dul la ca nekk te la nga xam ne ay matériel la ka xashabin aw xijaara lu mel ne bois ya ca nekk ak xeer ya ca nekk iz yata'azzaru naz'uha su dee dem nañ ba kenn mënu koo dindi fa inna lahu rujua biha ala rahin su boobaa dana man day dellu ca ka tey la woon ngiree mu mën koo fay loolu ala kulli xaal lii moom ay masala la yoo xam ne yu xaw a compliqué la te mooy kii dañ koo tey la kër mu dem dëkk ci kër ga na am kër ga yàqu na su boobaa dañuy gis ne du ko mën a jëfandikoo ci kër gi lenn loo xam ne nii dana ca mën a fayoo ko ay bor xanaa lu dul la ca nekk ci ay bois yooyu mu wax borom kër gi lii kat sa kër la bois baa ngi nii lu toll na bois bi jox ma ko ci bor bi bu dul looloo da ngay gis ne du ca mën a am leneen lu dul loolu li nga xam ne moom lañ cay jeexale mooy iza maata rahin dee na ka tey la si woon aw uflisa ka walla boog mu daa di doon ku ñàkk amatul dara fal murtahin a xaq bi rëhn kañi tayla woon moo gën a yeyoo tayla ga min saairil xurama ci mboolem ñi nga xam ni waa ji da leen yoroon loon bor fa ida xalla al ajal heure bu demee ba jot dik ba nga xam ne moom la moom la ñu waxoon baahu dana jaay borom ba wastawfa minhu daynahu daa di cay fayoo ko borom wa ma faddala rabdahu la nga xam ne mooy des mu delloo ko wa in lam yafi bu matul nag borom fa huwa uswatun ma al ghurama fi l baaqi day nekk rek moom it benn kuy topp ña nga xam ne ñoo yor bor ca la des ca day wax fii rek ne benn waaye ngi nii tey la nañ ko bor ci bor parce que tey la woon dee na nit ñi am na ñeneen ñum yorul bor waaye moom lañ joxoon kër gi wala moom lañ joxoon oto bi ñee nga xam ne ñoom ñeneen la yoraloon même bu doon ñoo ëpp lam lebal waa ji moom mi nga xam ne tey léegi ci loxoom la nekk moo gën a yey ci féetewoo lañ ko tayle ñee da fayee ko ca borom su dee ëpp na borom mu fayee ko ca borom la ca de su mu delloo ko ko tayle kon mbokk lii moom la doon wax ci wàllu ay garanti allahuma la nga xam ne moon ca yóbbu mooy téere bi waaye bari na masala yu bari nit ñi tey jëflee tuñ tuñ ko rawatina ci capital yi soo demoon ci àll yi nag moom dana fi am ba suñ jamonoy tey loolu mi ngi noonu ci wàllu tayle bala ñoo dugg ci beneen masala bi su doon tene ni mbokk yi amoon nañ ci laaj bu jëm ci tayle incha allah bu dul looloo ñu jël beneen bind bi ci tayle ndax xam ngeen am na lu mu ciy wax mooy nu ñuy binde ak tayle waaye nañ ko waxe woon rek mooy maadaama tayle ay façon yu bëri la xam ni ñuy cay binde benn lu tax nga mën a xam yi ca des loolu daal mi nga noonu incha allah su dee am na koy wax ci wàllu tey léegi jiitu ñuy jël beneen bi incha allah non wala kon naam bismillah naam ki nga xam ne dañ koo tayle ndax am na droit di ko jël di ko tayle keneen déedéet loolu moom amu ci droit ndax yonent bi alayhi salaam nee na ki nga xam ne dañ koo tayle kenn du ko xañ la mu tayle moom moo ko moom moom moom la cay juddoo moom la cay ñàkk looloo tax ba nit ki amuñu droit di ko tayle masalan benn fas moom it mu dem leb keneen tayle ko fasu waa ji déedéet loolee da ngay gis kenn du ko def doomu aadama bi lañ la tayle moomoo ko day doon garanti pour ëllëg si biir buñ la fayul nga mën caa fayeeku wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam bismillah waaw waaw waaw loolee day dépendre ci la nga xamee ne nii mooy matériel ba lu mu doon masalan bu doon te ne loo xam ne li ñuy war la euh, gis nañu ne ci li mu expliqué ci wàllu lu ñuy war waa ji moom lañ jox fas yi wala mbaam yi moo ko yor ci këram moo koy xont moo koy dundal ku mel noonu mën na koy nekk di ko war ci war bu diggu duumu bu àndul ak benn lor loolee da ngay gis ne loolu la ki ñu jox ak jur moo koy dundal am na droit di karat loolu mooy kon lépp loo xamee ni nii dang cay def ca lañ cay def di ca jël lu mel noonu amma bu dee ne du loo xamee ni nii dang cay def di ca retire lu mel noonu waaye yow boo ko jëfandikoo day doon loo xam ne nii luy yàqu la loolu da ngay gis ne islam du la may lu mel noonu ndax day lor ka nga xam ne moo ko tayle loolu daal la ñu mën a wax ca wàllu googu wallahu subhanahu wa taala aalam wax ne taarifuha buñ la doon xamal lan mooy wakaala al wakaala istinaabatu shaxsin mooy nga wuutal nit ku lay représenté ay istinaabatu shaxs mooy nit ki wuutal man yanuubu anhu koo xam ne dana ko mën a wuutu fi amrin min al umur ah ah mu ne mooy mooy kitaabatu rahne bi waaw kooku dañ ko jël dañ ko jël waaw mu ne kon fi amrin min min al umur ci benn mbir ci mbir yi alati tajuzu fiha niyaaba ci loo xam ne dana dagal ñu wutante ca kal bayi lu mel ni am njaay wa shira ak jënd wal muxaasama ak dàggsante wa naxwihima ak lu mel noonu kon kii day wax rek atteb sharia ci doomu aadama bi la nga waroon a taxawe nga jël keneen mu dem wuutu la ca loolu islaam dana ko nangu lu dul ci mbir yu néew shurutuha ana yan charte la ca lislaam di wax yushtaratu fi kullin min alwakil wal muwakkil des na sakku ci képp koo xam ne nii day def wakil ay di repré di joxe ku ko représenté ak ka nga xam ne moo koy représenté yëpp jawaazu tasarrufi ay takalluf mooy day dagan seenu jëflante mooy majeur nañu ànd na ak seeni xel ñoom ñaar ñëpp léegi nag xukmuha lan mooy atte loolu alwakalatu jaizatun bil kitaabi wa sunna nit ki am ku ko représenté ci mbir lu dagan la ci alquran ak sunna qaala allahu taala wal aamilina alayha suñu boroom mi ngi wax ci wàllu zakat ña nga xam ne ñoo cay liggéey ay sadaqa mooy zakat ya wahum wukalaul imam fi jam'i zakat te mooy ña imam jox responsabilité yónni leen ñu dem di dajale zakat ci turu imam maa ngi jublu ci imam bi jiite jurit wa qala taala suñu borom wax ne it ne fabaasu haq ahadakum bi wariqikum haadihi waa asxaabul kahfi bañ yeewoo seen nelaw ya dañ ñu yónni leen kenn ci yéen ci seen xaalis bi ilal madina mu dem ca dëkk ba fal yanzur ayuha azka taaman mu xool kan moo ca gën a sellu ñam fal yatikum bi rizqin minhu mu indi fa wërsëg wi ngeen mën a lekk faqad wakalu ahaduhum fi sharai taami lahum ñoom ñépp kenn lañ jox responsabilité pour mu dem jëndi ñam wi wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li unaysi yonent bi waxoon na kenn ci sahaaba ya di unays uxudu ya unays ila mraati haada ca soxnas kii day fa ni atarafat farjumuha su nangoo ne moom kat njaaloo na dóor leen koy xeer ba mu dee fa wakkala unaysan fi taxqiqi fi da'wa noonu la yonent bi yónni unaysin ci mu dëgëral mooy dëggal lañu jiiñ ndaw soose summa fi iqamati alxadd jox ko it responsabilité pour mu wóote ko taxawal ci moom atteb yàlla ba wa qaala abu hurayra radiallahu anhu abu hurayra it doon na wax ni wakkalani nabi sallallahu alayhi wa sallam fi xifdi zakati ramadan man day la yonent bi joxoon ma war a wattu mboolem zakkaat yi ñu daan indi ci koor wa qaal li jabir nooñu la waxe jabir radiallahu anhu ida atayta wakili bis boo demee te ka nga xam ne moom laa jox responsabilité fa xuz minhu xamsata achara wasqan na nga jël ci moom fukki wasq ak juróom mi ngi noonu wasq mooy sittuna cha di cent vingt kilos mi ngi noonu wa in ibtaga minka aaya su dee def laa laaj ban preuve nga am ci la yeneen bi moo la yënni ay alaama mooy mandarga fa da yadaka ala tarqutika jëlal sa loxo teg ko sa yaxi mbagg mii ci kaw muy wane ne preuve la kon maa la yónni wa baasa sallallahu alayhi wa sallam aba rafi yonent bi noonu la yónnee aba rafi mawlaahu di koo xam ne yonent bee ko moomoon goreel ko wa rajulan min min al ansar ak beneen góor ci waa ansar fa zawajaahu maymuna bintul xaarisa ñoom ñoo dem ñaanali ko maymuna kii di bintul xaarisa bokkoon ci soxna yi mujj a takk sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anha wa huwa bil madina fekk yonente ma nga madina fa wakkalahuma fi aqdi nikah mu yónni leen ngir ñu fasal ko pas-pasu sëy ba kon mbokk loolu lañ doon jël ci loolu li wane ni lislaam dana dagan doomu aadama bi jullit bi la nga xam ne yow yaa ko waroon a taxawee nga yebal keneen mu taxawal la ci loolu islaam daganal ci loolu ki nga yónni mu jaayal la islaam nangu na ko ki nga yónni mu jëndal la islaam nangu na ko yónni nit na ko demal ñaanali ma jabar mu dem ñu may ko jabar ay mooy wane ne may nañ la yow jabar islaam day nangu sëy bu mel noonu ay kon doomu aadama bi daanaka lépp loo xam ne dañ koy taxawee lu dul ay mbir yu néew yoo xam ne dañ ko jël sun darche bii di ñëw nit ñi mën nañ caa wóotante te du tey lislaam day nangu loolu kon mbokk loolu mooy la nga xam ne mooy li ñuy waroon a jël ci dars des na ci lu jege ay trois à quatre minutes su doon te ne ne am na laaj yu jëm ci dars bi wala yeneen laaj yoo xam ne nii da génn dars bi incha allah bismillah noonu ndax maryaama ak haaruna ñoo bokk ndey ak baay haaruna bi yàlla di wax ne labbe yi dañ ne maryaama yaa uxta haarun ma kaana abuki imraa sawin wa ma kaanat ummuki baxiya yàlla jubluwu ci yonent yàlla Muusa diggante yonent yàlla Muusa ak Isa ay siècle yu bëri dox na fi ay diggante Haarun ak ak ak Isa ak Maryam ay siècle yu bëri dox na fi Haaruna boobee lu bëri li ci borom xam-xam yi di wax mooy benn jeune la woon bu siiwe woon ci jaamu yàlla ba dañ daan dóor misaal ci jaamu yàlla naan Haaruna ak Maryaama léegi nag ñoom seen ñaari tur yooyu lañ daan boole ndax ay jeunes yu feeñ lool ci jaamu yàlla moo tax bi Maryaama defee njombe gi ñu ne ko hey yow yaa uxta Haarun yooyu mi nga xam ne dañu doon méngaleeg Haarun waaye Haaruna boobu mook Maryaama bokkuñu bokkuñu bokkuñu mi ngi noonu ki nga xam ne mooy yaayu Maryaama Maryaama la amoon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah ah naam bismillah ah tarqu xatika mooy yaxu baat yi yax yu mag yi waaw loolu mooy ay ay signe mooy di mot de passe mooy yenente bi alayhi salaam ki mu yoroon muy gérer dund yi nekk ci xaybar léeg-léeg bu mosaan soxla day yónni nit na ko demal mu jox la nangam comme nag jamono yi tamit dafa mas a doy waar ñu baax yàgg nañoo baax waaye ñu bon yàgg nañoo bon mu ne ko boo demee dana la laaj preuve bu la laajee lan mooy preuve ne yonent bi la yónni jëlee sa loxo teg sa ba ba ba baatu mbag sa yaxu mbagg bii rek dana xam ne li ngay wax dëgg la loolee da ngay gis na armée yi dañ koy jëfandikoo toujours ay mot de passe yoo xam ne ñoom rek ñoo koy xamante seen biir mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah ah ah waaw kin jox wakala naam naam ki nga xam ne wa waaw ko nga xam ne dañ koo def wakil ku mel noonu am na droit wakil keneen koo xamee ne nii wóor na ko ni lii ka ko defoon wakil xam ci moom moom xam na ko ci kooku loolee bu dee ne wóor na ko ne kee ma wóolu woon day lam xam ci man xam naa ko ci kii dara nekkul ci moom it mu jox keneen wakil kookee taxawal ko la nga xam ne nii moom la war a taxawal kële mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk jurit kon incha allah ñu jublu ci julli gi yàlla na yàlla nangul ñu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa